yonent bi alayhi salaatu wasalaam da nga xam ni mooy almuallimul awal weeru koor daf daan nafar alquran ak jibril yonent bi alayhi salaatu wasalaam at mu jot ci weeru koor jibril daf ko daan déglu mu nafar alquran bi ñu demee ba weer wi nga xam ni moo mujj ci weeri koor yonent bi alayhi salaatu wasalaam jibril nafar loo na ko alquran ci weeru koor wi ñaari yoon loolu in dalla ala cheyin fa innama yadullu ala anna ramadana huwa chahru alquran su amee lenn lu muy tegtale day wane ni kon ndekete weeru koor moom mooy weeru alquran kon di daje ci néeg ci néegu sunu borom yi di jàng alquran ak di ko nafara ko di ko déglu wax dëgg yàlla lu nu doyadi doyadi doyadi war nañ am yaakaar ci ni bunt bii de ci bunt yi gën a màgg ci wutu tiyaaba la bokk wax naa leen ni bokk na ci bunt yu iblis gën a bañ nit daw di ko fëgg mooy jàng alquran ndax lam ca mën a perte moom iblis dafa bari jàng alquran di déglu fu ñu koy tafsiree ak di ko nafar iblis bëggu ci dara ndax xam na ne lam cay perte dafa bari bi ci njëkk mooy day tax nga nite nga yeewu buumi bokkaale yàlla yépp alquran da la koy dogal te iblis bàkkaar bi mu gën a bëgg mooy bokkaale ndax lay tax nga sax ci sawara da koy arrangé lool bokk na ci yi tax mu bañ ko mooy alquran ci boppam daf lay dindi ci jaamu ab jaam yóbbu la ci jaamu borom jaam ñi te iblis bëggut loolu waaye nag ba ko ca gën a metti nag mooy wutukaayu tiyaaba bi gën a gaaw mooy alquran xam ngeen ni mboolem li nga xam ni rot na ci njàngale yu sew-sewaan yi nga xam ni jullit dana ko def ginnaaw faraid yi ba ca gën a gaaw ci am tiyaaba moom mooy jàng alquran ndax xaraf boo jàng ñu pointé la fukki tiyaaba maa ngi yaakaar loo yéex yéex am njàng loo ñàkk-ñàkk sori loo gàtt-gàtt saar yoo mokkal journée bi mën nañ la caa point ci ay tiyaaba loo xam ni néew na jaamu yàlla goo koy amee moo tax pexe bu mu mën nag dana ko def ba doo sawar ci alquran ji dana la dégluloo journal rajo dana la liirloo mboolem journal yi journal yi génn par bis dana la ñàkkloo jot dana la tayalloo saa saa sax nag mën ngaa dem ba yëkkati téere bi nag mu du roof la nga mentu nag loolu defe naa gaa yi xam nan ko léegi da ngay yëkkati téere bi jël intention jàng mu wir la ni yow gëmmanti woo dara jotu la waaye nga liir rek commencé liir rek gëmmanti dikkal la fekk saay-saay bee ñëw su boobaa waxaat aoudu billahi min ashaytan rajim nga jóg jàpp gis nga essence ak pétrole boo ko tegee ci pegg taal ni muy def nu ko raw la njàpp di def iblis musulul ci seytaane te nga jàpp kon alquran daal jumlatul qawli mooy di ko jàng ak di ko nafar dafa wax war ci waxtu wu ne waaye rawatina lii nga xamante ni moom mooy weeru koor gis ngeen njàngale yi ci nekk ak sunu bindab démb bi nga xam ne ci lañ taxawoon kenn ku nekk ci wayjur yi ak borom kër yi ak borom njaboot yi waxuma la ñun ñu jàng ko waaye dañ ko war a jàngal njaboot yi jàngal ko soxna yi ndaxte njàngale yàlla la ak ab yonenteem sunu bëggee texe day fii rek lañ ko mën a wutee si kon nu ngi taxawoon ci laaye ji nga xamante ni mooy laayey fanweereel ak ñett wala laayel fanweereel ak ñaar ba doon dugg laaye fanweer ak ñett waxtu dab ñu sunu borom di wax ni aoudu billahi samii alalim min alsheitan arrajim min hamzihi wa nafxihi wa nafthi ya nisaa annabiyi lastunna ka ahadin من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات وال والصا والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا كن شي لا يجوجو نتخون ديمب سنبرام سبحانه وتعالى دي yedd soxna yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxoon naa leen ni alxaafid ibni kathir nee na yàlla su joxoñee baaraamu yedd maanaam joxoñab yedd bu ko sunu borom joxoñee jëmale ko ci soxna yonent bi alayhi salaatu wa salaam laa shakka ne daf caa tàmbale waaye mboolem soxna yi àddina bi ci lañ dugg loolu moom lu xel di mën a nangu la ma tegoon ci ni saa soo sunu borom joxoñe joxoñeb yedd jëmale ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam balaa muy yegg si ci yow jullit bu jigéen bi war naa tiit te xam ni ci moom la joxoñ bi jëm si mboolem lu sunu borom dige ci aw yiw ci aaya yi jigéen ju góor góor lu sunu borom dana la ko may waaye tamit mbugal moom dige ka daalika jigéen ju sàggan dees na la ko mbugal wuuteeg li ëpp ci nit ñi li ñuy faral di wax ay muuraay yi ci rak saar beeg yi demee noonu nga xam ne dañuy faral di wax ni soxna yonent bi moo ko taxadoot waaye digg jigéeni àddina bi loolu moom tontu ko lu gàtt la la koy tontu mooy loolu ku xamul dara moo koy wax waaye yaakaar na ni ku am tuuti loo xam ci alquran am bañum rus sax war ngaa bañ a wax loolu ndax loolu borom xam-xam yu njëkk yi kenn waxu ko ku ñuy dellu ci moom kon sunu borom subhanahu wa taala mu ni yaa nisaa annabi yéen soxna yonent bi lastunna ka ahadin min an nisaa yéen day na ngeen yëg ni yemuleen ak yeneen jigéen da ngeen a am valeur kadalika noonu la suñuy jigéen yëgee ni ñoom yemuñoog beneen jigéen bu dul ñoom waaye lay tax ngeen am valeur boobu mooy init taqaytunna mooy bu ngeen ragalee yàlla moo tax ma wax la démb ni kon ragal yàlla ci la góor di rawee moroomam waaye ragal yàlla ci la jigéen di rawee moroomam gis nga ku bëgg a raw sa moroom ñi dama nga ragal yàlla subhanahu wa taala maanaam yàlla saa soo ko ragalee mooy jël orma roof ko ci yow ñépp ñoo lay ormaal waaye gis nga boo bëggee doye di rek bañ a la ragal yàlla wa man yuhini llahu fa ma lahu min mukrim gis nga boo ñàkkee ragal yàlla yàlla daf lay doyadal te ku yàlla doyadal suñu borom bu ni dootoo teddati ba faaw wa man yuhini llahu ku suñu borom doyadal fa ma lahu min mukrim dootoo teddati yow moom àddina yàqule nga fi yow dootoo teddati ilal abad sunu borom subhanahu wa taala mu ni kon bokk na ci liñ leen di yaree mooy fala taxdaana bu leen di nooj noojal di soppi baat bil qawli ci du ngeen di wax su ngeen ko defee fa yatma day xemem da leen di xemem alladi góor gi nga xam ne fii qalbihi marad xolam dafa feebar wax naa la ni la xol yi ñetti façon la bu feebar bu dee ak buy dund xol bu feebar bi sunu borom namm fii nee naa la am na ñoo xam ni yàlla daf leen a nattu dañu am jafe-jafe ci jigéen ba bu ñu gisee jigéeni jaambur dañuy teqalikoog seen sago waaye bu ñu dé déggee jigéen di wax di nooj noojal baat ka daalika gis nga masala mii am téeméeri jabar sax taxut mu faju ci nit ki loolu ngeen xam ko maanaam masala mii feebar bii bu daloon góor góor gi bu amoon téeméeri jabar loolu taxul feebar bi wér maanaam du loolu moo koy faj déedéet dafa am xeeti feebar yoo xam ne la koy faj mooy ñaan yàlla mu dañ keese ak di moytandiku maanaam feebar la wax dafa mel ni dañ ko mooñaale nit moo tax ngeen di gis nit dem ba am ay soxna yu bare bare bare mën a dem di doo xam doo xam lan la yaakaar naa jamono yi passé yi nekk di ci journal waa joo xam dem na ba am ñeenti soxna ba noppi di njaaloog doomu jiit leen waa jooju ñuy wax ni ma ni ma ni ma leen xamee yéen waa jàkka ji noonu laa ko xamee dañoo dëkkoon kooku ñu doon wax noonu journal yi nii ma leen xamee noonu laa ko xamee xam nga xam nga mbir yi kéemtaanu suñu borom la waaye nag xaw naa ko ko yéene tuuti nag ndax ku bañoon sunna la ku bañoon sunna la lool sax ba egg ci lool waaw kon yu mel noonu feebar la feebar la day dal nit feebar la buy dal nit nga xam nit ki dafay feebar ba su déggee jigéen di wax te xam ngeen ni jigéen bokk na ci ni ko yàlla mooñee te noonu rek la mën a mel nag mu baax ndax suñu borom lu mu def rek loolaay li baax gis ngeen ñaaw ñaaw yi nekk fii suñu borom defalu ko jigéen parce que jigéen daa war a nooy loxoy góor dëgër këñ dëll loxoy jigéen nooy nepp gis nga jigéen góor yaramam dëgër përëg yaag mag yaag forme bu bu bu garaaw la ko sunu borom di jox ndax daa soxla doole pour liggéey jigéen sunu borom nooyal ko gis nga melokaan wi jigéen yor Abdullah ibn Abbas nee na jigéen saa su génnee di dem ak fu mu mën a jëm même bu doon jàkka ja la jëm sax Iblis day jéem a fexe nu mu ko nu mu nu mu ko lëbasoo ida xarajat al mar'a istashrafaha shaytaan jigéen da koy jéem a lëmasu mu ni amaana sax seytaane da koy jéem a lëmasu mu ni amaana sax ndaw si muy naan moo damay ziyaara ji ku ku feebar mooy loolu ku baax la amaana mooy damay jaale ji amaana loolu ku baax la amaana mooy damay dem jàkka ja yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bu kentere jaami yàlla yu jigéen ñi dem jàkka waaye ñoom it nañ ragal yàlla te xam ni ñaari mbir a ngi nii mooy jullee seen kër a gën ci ñoom ñaareel bu ñuy génn nit wal yaxrujuna tafilaat sunan abi daawud boo ci delloo ab xadis ma nga fa buy wane ni jigéen ñi buñ daan génn ñoom dañ daan leru ci pegg sàkket yi ngir bañ a dajeek góor ci digg mbedd yonent yàlla bi nee na jigéen ñi yëg leen ni même bu ngeen génnee amu leen àqu dox ci digg mbedd yéen pegg mbedd yi ngeen di dox moo tax kenn ci magu salaf yi nee na koo ci masaana gis boor yére yi day xotteeku ndax sàkket yi ngay romb ñu koy lonk ak yu demee noonu gis nga de Aïcha nee na ji ji jigéen ñi de nii nuy def tey di génn bu ko yonent bi gisoon sallallahu alayhi wa sallam dem jàkka gam leen mayoon sax dana ko nanguwaat lu tax buñ masaana sëlmal sax jigéen ñi dañ leen fayit génn saa bu ñu sëlmalaan fajar jigéen ñi dañ daan génn dem doo xam ni sax kii mooy diw yaakaar naa yéen a ngi fàttaliku xisab Omar ma leen fi nettali woon nga xam ne mu dafa fiiroon ci soxnaam fiir ba ah yonent bi sax xam ko alayhi salaatu wasalaam Omar biig de romb naa benn étage ca ajana gratte-ciel bu kawe romb jongama ju jekk jonkan ca bunt ba di jàpp ma laaj ko moom lii ñu ni ma Omar ibn al-Khattab ma ni xaaral ma dem gaaw mu ni ba ma ko xoolee sama xel ci sa fiiraange ji la dem allahu akbar moo tax xooluma sax ndaw sax allahu akbar xoolul yonent sa sallam di ko sàmmal loolu ba di ko ko sàmmal sax ci loo xam ni du réalité yi ñuy dund fii ci àdduna ci àllaaxira ja la Omar daal di jooy ni ko alayka agaaru ya rasulallah man bu may fiiree sax dinaa fiiree geneen góor gudut yow ça veut dire que kon bu ma la fiiree wut yow maa ngi fiire ñi ci des amut keneen nag amut kii sama copain la amut ñoo bokk fu ñuy liggéeyee waxoon naa leen ko démb yooyu justul soxna jaambur soxna jaambur la góoru jaambur góoru jaambur la bokk fu ñuy liggéeyeeg ñoo bokk benn société ak ñoo bokk benn koñ ak yooyu compte góoru jaambur ak jigéenu jaambur daal buñ mënta séq xàmmi kon te ku ne xam sa morom ngir foo dajeeg sa morom xam ni kii mooy diw bu jàllee leneen lu ca topp yooya lislaam da koy tere buñ amee full ju ñuy waxante nañ ko waxante suñ ca pare pare nañ ca waaye wax naa ne bunt yii soxna yi ñooñu ci tooñ ndax li tax soxna yi ñooñu ci tooñ mooy bunt yi ñoom rekk ko mën a tëj mu tëje buñ ko bëggoon a tëj ba léegi tëje na ndax kanam du kaso waaye koo ko tëjal mu xam boppam su fekkoon soxna yi tëj nañ ko freiné mboolem góori jàmbur yi dama ne góor du am fitu di la wax ay waxi caaxaan téer bu la sañee ñawal lu ñaaw parce que na nga ñëwee ca moom a tax kon ji jigéen jullit bu jigéen moo war a fonk boppam yëg ni valeur bi la sunu borom di jox mi ngi aju ci doo séq ak góoru jàmbur dama ni sa nooyaayu baat sa borom kër a ko war a xam feneen foo ko defee soof na wa man yasub bil maarufa fi gayri ahlihi yakun hamduhu damman alayhi wa yandam ku jël teraanga soppi ko ci bool bu bënn buñ la ko sànnee mbaa ñu xas la yaa tooñ sa bopp loolu la arab yi wax wa man yasub bil maarufa fi gayri ahlihi yakun hamduhu damman alayhi wa yandam ku jël teraanga soppi ko ci bool bu bënn buñ la ko sànnee mbaa ñu xalab la ko yaa tooñ sa bopp kon julit bu jigéen bi nooyaayu baatam neexaayu baatam ay kafam ay reem bari jàmmam diw ni mu bari jàmm bari jàmm diw soxna jàmbur bari jàmmam lu ci yoonu góoru jàmbur mooy li ma leen wax démb rek ah diw sa nangam jeeg sa li nga sol jekk na soxna jàmbur la mu sol jekk na góor gu ragalul yàlla rek moo koy tudd góor gu ragalul yàlla moo di ko xool ba di ko tudd waaye moom it soxna si ragalul yàlla ndax lañ ko nëbbuloo bu ko nëbbuloon góor gu ñàkk fayda du ko xool ba di ko tudd yu mel nii nag jàngale ko jàngale ko yomb na waaye dund ko ci société bu mel ni sunu bés bi moo jafe ndax boo ko fi tàmbali woon dund léegi nga dégg ñu ne da nga ëppal ak da ngaa waaye yow bu la xasee nga bokk ca rangab saxaaba ya kay am nga ndam na la ñëpp bàyyi yàlla kontaan ci yow nga def la raabi doon wax laytaka taxlu wal xayaatu mariratun laytaka tarda wal anaamu gidaabun sama diggante yow ratax ratax bandang sama diggante ku ñagas sama yoon néewu ca sama digganteeg yow na neex lool sama digganteeg ku naqari faalewu ma ko loolu rabia doon wax te jullit bu nekk loolu la war a fas ndax wallahu wa rasuluhu axaqu an yurduuhu in kaanu muminin kontaan loo yàlla akub yonentee moo la war a gën a yitteel ngay kontaan loo keneen kaainan man kaan ak ku mën a doon moo tax sunu borom mu ni fa yatma alladi fi qalbihi marad góor gi am feebar dafay xemem jëm ci yow ñan lay waxal saxaaba ya ñu baax ñu sell ñoo ñoo doon gis yonent bi alayhi salaam gën ñu bëgg àjjana dem badar dem uhud dem xandaq dem ahzab dem muraysia dem xare yooyu ngay dégg yépp ah yàlla gërëm leen gërëmaat leen gërëmaat leen lu mat juróomi yoon ci alquran ah ñun moom sax taxut di wax amul kenn koy wóolu gis nga yonent sa salam ba mu ne góoru jàmbur bu mu wéet ak jigéenu jàmbur benn waay mu ne ko ah waaw sa rakki jëkkër ak sa magi jëkkër nag mu ne ko alxamu almawt kooko sax moo gën a garaaw dee nag ah waaw waaw moo gën a garaaw dee ndax tey góoru jàmbur gu ni ba xër ñëpp dugg ci biir néeg bi xel yépp commencé ak lu nu rafetal rafet commencé xalaat lu ñaaw donte lu ñaaw amu fa waaye sa magi jëkkër ak sa rakki jëkkër yu demee noonu ku dugg ci néeg bi kenn du xalaat lu ñaaw fo loo tax yonent sa sallam bi alhamul mawt ku mën a jàngale la parce que li tax mu ni moo gën a garaaw dee mooy kenn du ko ko foogee sa rakki jëkkër ma sañ naa ñëw tëdd ci sa lal sañ naa dugg ci sa néeg sañ-sañ yooyu ñu ko may nag ca la seytaane di profité mu ne alhamu al mawt kooku moom moo gën a garaaw sax dee moo tax sunu borom mu ni wa qulna qawlan maarufa bu ngeen dee wax wax leen wax ju jub ju jot ju leer joo xam ne amul beneen explication buy topp ci ginnaaw mu ni waqarna fii buyutikunna na ngeen riigu seen biir kër yi nag na ngeen toog wala tabarrajna bu leen jaayu tabarrujal jaahiliyatil ula mooy jaayu gi nga xam ni ceddo yu njëkk yi la ñu lañ def ci joxoon naa misaal bi démb ñu bari nag dañuy faral dox ni l'islam dafa toroxal jigéen islam dafa tere jigéen génn islam dafay gis nga loolu ñi nga xamante ni xaw ma ay ay fémi féministe xanaa lañ koy wax féministe féministe waruñu leen tuddee ay féministe lañ leen tuddee féministe ñun dañuy yàq suñu jigéen ñi lii moo tax nag borom xam-xam yu ñiy jàng ak jàngale war a leeralal jigéen ñi am na xutba juñ fi defoon bi unwaani laqad kunti adalla alqawmi fa aadaki llahu fa mahma btagayta alizza gayra al is duna al islaami adallaki llah defoon naa fi xutba ci jamono yële weesu ci yow ku jigéen ki da nga dañ laa konte woon ki gën a torox ci mbo société bi islaama la yëkkati boole la ci ñi gën a tedd fooy wuteeti teraanga fudut fii foofa la la yàlla fekk toroxale la fa buñ daan miraas daawoo amub cër boo demee ba jot ci benn moo tax tey ngay wax la ca topp jigéen bu jëkkëram masaana faatu at la daan ténji islaama ko dindi def ko ñeenti weer ak fukki fan ñi ngi bëgg a woote ay loi yoo xam ne ñeenti weer yeeg yu fukki fan yi dañ koy di dañ ko bëgg a dindi parce que jigéen ñi amuñ jot dañuy liggéey sa rakk jëkk sa rakk wala sa frère bu faatu woon nga bëgg a donn jabaram amul bëgg nga ma amul bëgg naa la mbubb ngay jël rek sànni ko ko muy wane ne takk naa la jeex na gis nga de jigéen bu musaana judd ca saasa fa fa la problème am njëkk a nekk parce que dañ koy gas suul bu dee jigéen la ndax munul pro- lu dul problème boo am mu jooyle la ko euh, loo togg mu lekk ko amul njëriñ wa idal baw udud su ilat loolu moo ko tax a wàcc gis nga de ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yëpp islaam a ko fi jëlee xoolal yi yëpp ko ko fi jëlee ba noppi ne la toogal ca kër ga ci sa fauteuil kii ñu ne ko génnal ca naajo demal liggéeyi ko kay góor a gën a sonn kon l'islam ci boppam mooy ki fonk ko jigéen ci islam ci boppam moo teral ku jigéen ki jox ko ay ay ay jumtukaay yu tax mu mën a nekk yarkat xam ngeen ni moos borom xam-xam yu mag yi fóore yu mag yi wàll yu yàlla yi ña ubbi woon baytul maqdis ah ña gañe woon waa perse ña gañe woon waa Rome seeni yaay daawuñ xëy nga bisaak di génn comme seeni baay déedéet déedéet ñi defoon jëf yu mag yii seeni yaay daawuñ xëy di nga bisaak di génn comme seeni baay parce que mënta nekk yaay faw mu toog ci kër gi yar bu fekkee dañoo jàpp ni tey jigéen ji pour mu am passeport diplomate di laleek ca kaw ak a ñëw mooy tax mu am valeur déedéet mooy tax mu ñàkk fayda ndax même bu ngant amee ba mu am sax charte ya tax ñu mën koo matal tey mataluñ jaxasoo góor ñi ak jigéen ñaak sa borom kër ànd caag wala ila axirihi xaddis wala xaraj wata sunu borom mu wax ni jigéen ñi nañ toog seen biir kër yi wala tabarrajna tabarruj al jaahil tabarruj mooy jigéen ji génn ba noppi yamul ca génn waaye mu génnaale ay xeeti taar maquillage génn pastelu génn rosa wu génn faaru génn wala sol loo xamante ni daanaka yow yaay attiré nit ñi di leen xëcc loola jullit bu jigéen waru koo def dafa am nu lislaam bëgg booy génn nga génnee noonu bunt bi duñ ci yegg si mukk lu dul dañuy ñaanal Cheikh Nasrul Albani rahimahullah ndax taalif na téere boo xamee ah man de ci li ma xam ci li ma xam am na ñu ko ci jiitu de taalif ca wax ca waaye masala mii ni mu ko faram-fàcceeg ni mu ko leeralee ni ba mel ni ni mu def moom xawma ku ko ci jiitu rahmatullahi alayhi rahmatan wasia ci jigéen lu mu war a soloog lu mu war a génneeg charte ya ca war a dajeeg yooyu yépp kon jigéen ji na sax ci këram bu mënta ñàkk génn comme ni ma leen ko waxee léeg-léeg ngant dana am jigéen ji mën a génn soxna sawdatu bint zamaa soxna yenn saa sallam dafa génn benn bis tase ko Amar ibn al-Khattab Amar ni ko waaye yow jugal fii waaye ñëpp xàmmee nan la ah yaa ngi nii yow ku la xool xam ne dafa amoon yaram mu ne ko yow ku la xool xam ni yow la yaa ngi nii affaire bi metti ko moom ndaw si mu ñëw ka fekk Amar loolu lépp rek bëggoon rek ndax yàgg naa proposé yonent bi téel soxna yi buñ génnati moo tax Omar ibn al-Khattab ay yoon day am bëgg-bëgg proposé ko yonent bi aaya ñëw saxal ko ànd ceeg Omar ay yoon proposé na yonent bi téyel soxna yi buñ génnati sunu borom daal di wàcce benn aaya di wax soxna yi nañ toog ci seen biir kër yi Omar ni non buñ génnati sax définitivement yonent bi ni ko déedéet nag bàyyi leen soxla yi mënta ñàkk